mënoon naa ko laaj nag su ma su ma mais damay bañ ay détails walla ay wax yu sew. waaw foofu laa jëm fan yi démb sax lay wax démb ay côté je pense seize heures jàpp dix-sept heures remarqué woo benn jàppante bu ndaw ci diggante Ndeye Daba ak Sofia. jàppante man démb guddee naa wàcc de damaa amoon exposé. Hmm. ndogoo sax ci kër gi. mais remarqué woo daal aussi ñoom ñaar seen diggante lu xaw ñagas wala ñuy rombante des fois di jiibatonte ay détails yu jigéen daal amul lenn loo ci remarqué. Sofia ak Ndeye Daba. Hmm. ñoom ñaar. waaw. moo xew juumu. damay laaj rek damay laaj parce que je pense que nii dama def benn remarque ñoom ñaar seen diggante. na nga def séeréer. waaw ba yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah naaf yoo. ça va ça va mexe man na bay xool li nga gisee nii. si man koor gi moom li nga gisee bu fekkee maa fi laa xatee. Mhm. Mm, damay lakk séeréer normal bu ma xëyee. mais demu njoorndi laa xatee quoi moo tax du ma mën a wax séeréer normal. wax dëgg yàlla man moom boo bëggee dégg dëgg. waaw yéen séeréer si dégg maa neex. xam nga ñu bëri ñu ngi naan ay tukkulóor jàmm séeréer séeréer jàmm tukkulóor ma dëgg la man tukkulóor laa waaye nun ñooy seeni jàmm dangay duwul boo xoolee séeréer moom njëkk a toog président fii ci Sénégal waaw toogaat président waaw parce que période bi di jàng di am xam-xam pour toog président waaw boobu pël yaa ngi moo tax man ne la kay yéen yéen ah yéen buur waaw yéen buur ah. ñun ñooy jaam yi waaw ah, loolu laa wax di non dama déggul xam nga wala dafa leerul te man boo bëggee dégg dëgg wax dëgg yàlla bëggoon naa la ko wax bu yàgg danga ma neex bëggu naa la ko wax li tax nga neex ma nag du lenn lu dul da nga am jom am fulla ci sa bopp am fayda nangoo liggéey kenn du la gis ci mbedd ngay taxawaaloo ko falax-falax yi ku la gis sa bërëbu bu liggéey koy la fekk loolu nag dama cee gis sama bopp man ndax man ba may jógee bawal gee di ñëw fii métti woon na ci man trop waaye yaa foo suma da ni ngay def ni laa doon def mhm. di takkale mhm. di taaba taaba mhm. di xoosi tànk ñu may fay di sangi xar di raxasi oto maanaam lépp loo xamante day may xaalis man jaar naa ci mosumaa xeeb dëgg la kon tey bu ma amee xaalis nii yori oto ki kenka yëri dama koo mérité li ma am nag gis naa ne yow war nga koo mën a am ndax yoon woo ma jaaroon yaa ngi ci gis nga fii Thiès ay Thiès ak yooyu la moo leen tardel mooy dañuy xeeb liggéey complexe di cekki cekkee ka cagar cagari topp kër yi di toog du nangoo liggéey yow nag loolu nekkoo ci moo tax da ma maa neex tey wax dëgg yàlla dama naan la félicitation ku baax nga rappelle fi nga ko jàpp nii foofu la ah bul ko bàyyi noonu la noonu la noonu la yow daal bu la fëkk yóbbu ko baax si maa ngi jéglu nag ci kaddu gi quoi mhm. ndax boobu ba léegi yaa ngi wax ma ne muut dëgg dëgg mel ni laaloo mbay hmm? xam nga da nga ne fii Thiès. waaw boo yi dañoo gëm bolow boog lu yomb nangu ñoo liggéey. di ñoddi loo xam ne nekkul ci ñoom. mais kon yow ci waa Thiès nga bokk. man waaw parce que dund boobu ngay lay fi yow fi mu nekk nii. waaw parce que yow déjà gis nga sa sa bolow bu bii nga aligné. ah modeste yow li ngay incarné nekkul ci yow yoroo loo lekk xam nga lan la ku baax nit da ngay naturel yaa ngay dégg. ndax li nga ni nii doxul de. garaaw waaw. ah foo jëm. kii laay seet Ulay eh, eh, Ulay. ah déet fii moom doo fi mën a dugg moom. pour fii. waaw na nga jégal ma nag. moom doo fi mën a dugg borom kër gi ma convoqué woon. mais daa bëgg ñu waxtaan ma ak moom waxtaanu kilifa borom kër gu góor yi waxuloo ko. seen mbiru jigéen yooyu daal ci botonte rombante. def ay xam nga yow jigéen nga yaa ma ko war a mën a gën a xam. li may toog ci kër gi nag bëriwul waaye Daba ak Sophie moom ah jàmm laa nga xamee woon de. Hmm. ndaa am lu xew tamit. li ma bëgg daal euh, bàyyil ma leen xew daal. ma ne yow ñoo bokk deret bu nekkee daa am lu xew wax ma. Ah, waxtaan ak ñoom non cest à dama dama dama dama am soupçon rek ci ñoom ah. dama am soupçon que ni le courant ne passe plus voilà. kañ la commencé am dudd yooyu sax. depuis depuis démb ah. démb. depuis démb. te dara xewul démb nga ma koy nëbb sax yow mi moo tax ma leen su fekkoon ni am na lu xew kay dama koy garder pour sama bopp waaye li ma ko xamul moo tax ma leen laaj. man yëndu ma fanaanu jàmm daal laa leen bàyyi woon. Hmm. nekkee tamit dangaa bëgg ma wax ak ñoom wax ma man ñoom ñaar ñëpp samay xarit lañu. baax na baax na man dinaa dinaa xam ni may def dinaa xam ni ma koy lijjantee baax na dama doon laaj rek mais c'est bon baax na. ku baax li ngay duutal di ko mbañax mañaxee yëpp xam naa li nga programme borom kër gi convoqué wu la yow gëmoo yàlla boo xoolee. sa hmm. côté bi ceddo la bii yawut la tuuti jullit nga ñam rek. ndax booy doxaan ba weer booy booy war jigéen ba weeru koor ñeew ak yoor yoor gi ñu tol nii ci bëccëg gi nga war a jëm yàlla toog sa kër xam nga li ma te doxaan balaa neex ngay doxaan sax ku la nopp gis nga yow nag euh, yow nag séeréer gis nga liñ naan lu ëpp tuuru boobu ba léegi maa ngi neexal di raay di cappi-cappi bëgg lu la neex waaye xam naa ne yow mérito woo ko kon dag may neexal comme que réewane nga may jaay dinaa la wuyu si ci réewane man du ma sa moroom sin c'est pas ton égal dofoo jinne jàpp la. saaga wu ma la saaga wu ma la non non non buguma loolu bu ma dépassé. waaw dépassé wu ma la. mais yow it bul ma dépassé. ci kër gi laa jëm dañ ma fay woo ah nga bëgg maa di ma wax di ma wax ay waxu ñàkk fa di waxu di wej wej ba moom a def waaye bu ma tooñ. bu baax du noonu ah. dimbale ma rek nga nii moo gën a rafet quoi. yaa ngi bëgg a réew waaw ah? yaa bëgg a laa wan sama réew ne. Baye Fall man mii nag maa la bëgg a tawoon sama réewande bis boo génnee sama réewande di nga ci bëgg a génn mu tëla bàyyi ma ma dem ku baax léegi ragal naa la nox ma nox ma boo ma boo ma boo boo ma karaate ma ñuus la ba nga duul laa wax ma nga réew yow du gis nga bi une tonne cinq cent bi gis nga ko gis nga ko ku baax bu ma sesee nox la de damaa wóor nag fi ne nii daanaka damaa xaw a lox de boo fekkoon mu am kattan dégg heure bi waxatuñ kon dangeen naa la nga uti fële mais nag ci gàttal dama bëgg lu kii rek bëgguma tooñ ndax koor day laaj nga faire peley yow xam nga ne xam nga ne li ma woor a tax li ma woor a tax ak li ma indiwul sama lappataake bi sinon kon maa yow fi dina mel ne Lat Joor ak tubaab ba yoorul rek gënoo maa réew ma ba ma ñëwaat noonoo non demal rek ba ma ñëwaat bu ma ñëwaat di xam ne yow noo demal rek yow li a dugg boo duggee ci kër gi léegi man sama sama sama liggéey nan la ci buntu bi ah mu ñëw fii naan ma da ngaa baax xam naa lépp affaire da olof la may jaay di ma jaay maayin doo xamul ne man dama lamb góos lambu tuuraat xam li xew ci digg bi moo tax fi nekk ni li muy waxee ne muut ne cel di ko bàyyi mais nag fii ak fan ma noqande yow ah. sama feeraay nag wax dëgg yàlla borom waroon naa ñëw nag ba ma kii ko